alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. kon ñàkk nañ koo xam ne yéen ñëpp ñu ngi leen koy jàll yonent bi na eh, ak jeexal borom xam-xam jaar la ci diine loolu nag fa ku bëgg a xam da ngay dikk ci gémmiñ seet bëñ bu rot nga seet borom di yeey ngay mën a déggee ak yi bi daf daan dafa dëgëroon boo bëgg yeey ñam mu takkal la boo bëgg yeey jaxat loo bëgg yeey tey nag foqal nga bëgg yeey ba ak si foofu amuloo lu ko dagg da nga xam ne ah fii ñu gën ko firi nag ci sëriñ bi Njaay bi mooy tey fan yi ci gën a du ñàkk bu ñàkk bu dàqaale bu ñàkkaan dépasse bu dikkee weer yooyu yëpp day am tey nag mu dikk fekk ko ci suñu jëm ba mbaa lañ koy jox rek boo ko bañ ba xam na ne ko ko bañ ba jàll bañ ba ko daan daggal affaire am jàll danañ nit dana am ordonnance boo soccaan mu jox la ordonnance bi joxaale la dépasse tey nag nga ñëw fekk ko la fa loola kon bañ ba daan dagg loola rox bu ko defee sa xol fokk mu métti dugg loolaa tax yonent ne deexu borom xam-xam jàll na ci diine lëggéeyal na yonent yàlla Muhammad lu bët ñuy gis bëri na fuñ ne lëggéeyal na yonent waaye kenn man ko wane lam def waaye diina lislaam boo ca tabaxee jàkk te yonent loolu la njëkk a def ba mu ñëwee Madina tabax jàkkaam ñi la njëkk a def ci tabax dërëm sax te njëm bu ñu ne la néegam yàlla bi ñu ne moo ko tabax te ci xalalu boppam la ko du yalwaane alali boppam ci la koy tabaxee loolu nag xam yàlla may ko